أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ak yéen ba tey ci kitaabu tawxid tollaat ci buntu bi topp ci darsi bi passé muy baabun ma jaa fi ruqa wa tamaim buntab mocc ak takk gàllaaj ba tey ñu ngi ci tomb boobu buntab tey bi mooy ñetteelu bunt bu ñuy jàng mbirum mocc ak mbirum gàllaaj li tax nag tomb yu mel nii boroom xam-xam yi di ci yàgg mooy li ci aju moo bari ndax texe doomu aadama ci la aju ak texee deem sag dugg aljanna ak sag ñàkk dugg aljanna ci la aju loolu moo tax boroom xam-xam yi yàlla ñu leen yàlla fayal di yàgg di leeral bunt yu mel nii ndax jullit ñi war koo sori la ca baax te dagante ñu jël ko la ca nekk safaan ñu war koo sori tey bu ñu ñëwee ci min ahdafi dars importance bi tax tey ñuy jël dars bi mooy an yatabayana taalibul muslim xuturatu taalluqi bi gayrillah ab jullit dina jël ci dars tey bii danger musiba bi nekk ci aj sa xol ci kudul yàlla wékk sa xol ci kudul yàlla jël say mbir yépp wékk ko ci ludul yàlla wala kudul yàlla musiba bi ci nekk lor yi ci nekk danger yi ci nekk tey dinañ ko jàng ñaareel bi mooy an yuxissa taalibu lmuslim ala tawakkuli ala allahi waxdahu jullit bi dinañ darsu tey bi dana ko soññ dana ko ñaax dana ko xiirtal ci muy jël ay mbiram di ko wékk ci yàlla subhanahu wa taala ñetteel mooy an yaxzara taalib min amalil jahiliya jullit bi dina jàng tey ci dars bi mooy dafa war a moytandiku mbiru ceddo ndax ceddo moom bokkul ci lislaam léeg-léeg nga dégg ci Sénégal wax bu doy waar mooy ñun ay tuubeen lañu ñun ay tuubeen lañu est-ce que ñun tuub nañ sax booy laaj est-ce que dëgg-dëgg baat boobu sax lu am la est-ce que ñun tuub nañ ndax ku tuub mooy ku bàyyi li nga newoon jublu mbir mu bees ñun nag la ñu nekkoon ak démb ak barki démb dañ koo ngoy dañ cee ngoy ba pare bëgg a jàpp ci lislaam bëgg a jàpp ci ceddo ca ceddo moom amul place ci lislaam kon ñaari mbir yi wala ñett yi mooy danger musiba aj sa xol ci kudul yàlla ak xiirtal jullit pour mu jël mbiram yëpp yëpp ko ci yàlla ak mooy tandikuloo ab jullit muy def jëfu ceddo tey ñett yi mooy sunu importance su jël dars suñ ñëwee ci nas bi mooy textu dars bi ñuy jël ci boppam danañ fekk ab saxaaba bu tudd abdullahi ibnu ukaymin marfuan mu ne man taallaqa shay'an wukkila ilayhi rawahu ahmad wa tirmizi bu ñëwee ci nas bi danañ fekk saxaaba suñ nee saxaaba mooy ku àndoon ak yonent bi gëm ko gis ko wala ñàkk koo gis bokk ak yonent bi jamono loolu mooy saxaaba saxaaba bi moo ñuy nettali ci hadis bi da ngeen ci gis ñu def marfu yéen ñi jàng hadis di ngeen dégg yenn saa yi ñu ne marfu wala ñu ne mawquuf suñ ne marfu mooy hadis bi yonent bee ko wax dañ ko yëkkati ba ci yonent bi buñ ne mawquuf mooy dañ koo tënk hadis bi eggul ci yonent bi waaye ki ko nettali moo ko wax mais ñaar yooyu yëpp sax am na ci borom xam-xam yoo xam ne dañ naan ñaar yëpp waxu yonent bi la ndax sahaaba amul droit naan yonent bi nee na ñemewul naan yonent bi nee na te yonent bi waxul moo tax ñu ne laa yajuusu an yuqaalu min qibali ra'yi loolu dafa bokk ci ahkaamu ñiy jàng hadis ndax sahaaba ñemewul naan yonent bi nee na te yonent bi waxul loolu moo tax souvent souvent ñu naan ñaar yëpp dafa am atte bu wér ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax sahaaba bi nee na yonent bi moo ne man taallaqa shay'an wukkila ilayhi ku takk dara ñu bàyyi laag loolu wala ku aj sa xol ci leneen lu dul yàlla yàlla bàyyi laag loolu hadis bi am na ñaari sens baatu man taallaqa taallaqa mun nga mooy mën na nekk takk dara mën na nekk aj sa xol ci leneen lu dul yàlla ñaari benn baaxu ci baatu man taallaqa mu ne a taalluqu yakunu bil qalb wa yakunu bil fiili aj sa xol wala takk dara mën naa nekk ñaari mbir ñaari mbir mën na cee jublu mën ngaa aj sa xol ci kudul yàlla yakunu bil qalb sa xol nekk ci kudul yàlla mën naa nekk encore say jëf say jëf tamit nga koy jëf te yàlla taxul ñaari mën naa nekk wa yakunu aydan bil fiili muy ñaar yoo xam ne benn baaxu ci sa xol boo ko ajee ci ku dul yàlla musiba la say jëf boo ko jëfee ci yàlla taxul musiba la kon samay mbokki jullit lii ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo bokk darsi yii maanaa ñun ñëpp dañoo war a xam ne li nu lislaam di jàngal suñu njëriñ la kenn waru cee rëy di ñagg-ñagg xol ak naan ñoom diw lay wax ak ñun lay wax ak kii li muy wax ak ma ne ñun ñëpp a ci yem boolu ceeb bu ñu yekk rek la ñu la ne kaay lekk nga lànk yaa ko yëg ma ne li yonent bi jàngale laa wax daf ñu war a doy ñu moytandiku di aj sunuy xol ci kudul yàlla te tey loolu daa bëri dafa bëri jullit yoo xam ne li leen gàllankoor mooy seeni jëf yàlla taxul seen xol soo ko ubbee doo ci fekk yàlla musiba bu rëy la nag saxaaba bi nettali xadis bi pour ñu delluwaat ci moom tuuti ñu ngi ko doon dàkkantale wayu kanna aba maabad bokk na ci niñ ko doon dàkkantale mooy abdullahi ibnu okaymin niñ ko doon woowee mooy baayu maabad aba maabad lañ ko doon woowee aljahani alkuufi suñ ne kuufa ñëpp dinañ ko mën a xam ndax iraq la nekk imam buxaari nee na waa ji moom adraka zamani nabi kuy werante ci ay mbiram sahaaba la la wala du sahaaba imam buxaari nee na saha waa ji fekkee na jamono yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne bokk na ci sax wa qadima almadain fi lxayaati huzayfa wa kaana siqo nee na ñëwoon na ca madinatul munawar ci dund huzayfa nee na moom bokkoon na ci ñi solo xadis siqa la woon ku amoon xam-xamu xadis la ibnu wa zakara ibnu saadin ku boroom xam-xam bu tudd ibnu saad nee na waa ji annahu maata fi wilayati hajjaj nee na fekke na jamonoy hajjaj hajjaj benn waay la woon bu doyoon waar bu musa jiite jullit ñi def ci lislaam ay mbir yu doy waar incha allah bu ñu yàggee dund yàgg a déglu dars yi peut-être benn bis dana ñëw ñu xam kan mooy hajjaj wala ñu dégg ko ci yeneen barab yu wuuteeg barab bii nee na yonent bi nee na man taallaqa shay'an képp ku takk dara ku takk dara mu ne wukkile ilayhi ñu bàyyi laag loolu ay wakkala allahu ila dalika shay alladi taallaqahu ku takk dara yàlla bàyyi laag loolu mbokk yi ku yàlla bàyyi ak sa bopp nga al ku de ku takk béjjén yàlla bàyyi laag béjjén bi béjjén bi lu mu la mënal mun la dara ku takk pittaaw yàlla bàyyi laag pittaaw bi lan la la pétaaw bi di jëriñ ku takk lam yàlla bàyyi la ak lam bi lan la la lam di jëriñ maanaam lépp loo takk te dul yàlla yonent bi nee na yàlla dalay bàyyeeg loolu loolu lan la lay jëriñ wallahi du la jëriñ dara kon wukkila ilayhi danañ la bàyyi ak loolu loolu nga takk yonent bi nee na danañ la bàyyi ak loolu nga takk allahu akbar est-ce que loolu nga takk am na njëriñ est-ce que loolu nga takk dana la jëriñ est-ce que loolu nga takk mënal na la dara loolu nga takk est-ce que am na lu mu mën su fekkoon ne mën na dara kon mu jëriñ boppam ñu bari ci ñun day gis ndeysaan yenn saa yi ku takk gàllaaj takk bijjën man taallaqa shay'an wukila ilayhi ku takk dara yenent bi nee na yàlla dina la bàyyeeg loolu yàlla bàyyee la ak sa bopp kon jullit fa man taallaqa billaahi képp ku aju ci yàlla mu daal di jël ay mbiram yépp sukkandiku ko ci yàlla yàlla dina ko doy ndax yàlla moo ne fa huwa xasbu barakallahu fiik ku jàpp ci yàlla yàlla doy la wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu caay boobu laa jëmoon ndax moo fi nekk ku jàpp ci yàlla yàlla doy la caay bi mu ne wa ala allahi fal yatawakkalu in kuntum muminin bu fekkee gëm ngeen yàlla na leen yàlla doy in xarfu charte la su fekkee gëm ngeen yàlla in kuntum muminin kon fa tawakkalu ala allah kon bu leen wàkkirlu ci leen xoolal ñun tey ñaata jullit ngay gis yoo xam ne seen lépp ci leneen lu dul yàlla lañ ko teg maanaam seen mbir yëpp sax yàllaa ciy mujj da ngay gis misaal bu mu daw nit feebar ñu dugg ñu dugg ci dëkk bi wër fu nekk dem fu nekk dugg fu nekk dem hôpital ba hôpital jeex ñu dugg ci maaman yi ci gàllaaj yi xërëm yi ba foofu gaare mbokki nit ki lan lañ lay wax ah léegi de wax dëgg yàlla yàllaa fi sës xoolal dernière minute lañ ñëw ci yàlla dernière minute fekk bi ñu ne bërët première fois fan lañ waroon dem ci yàlla waaye dañuy wër ba jeexal côté yépp mënatuñ dara làmb nañ ba jeexal ñu ne yàlla fi sës même sax waxuma ku feebar ci utum liggéey ak ci ci ci da ngay dégg waa joo xam ne non man dama dox ba sonn léegi kay damay toog rek xaar yàlla gis nga léegi kay yàllaa yàlla lay xaar sonn naa quoi def naa fu nekk def naa jàng naa def naa samay formation bon affaire yëpp dëgër ah bon léegi nag xam nga lan la yàlla lay xaar quoi xool xoola axiida yu bon yi xoola pas-pas yi jullit yéppam yàlla moo ci war a njëkk comme noonu nga naan yàlla moo ci mujj yàlla ci njëkk yàlla ci moo ci mujj wal awalu wal axir yàlla njëkk yàlla mujj kon suñuy mbir na ci yàlla di njëkk mbokk yi na ci yàlla di mujj képp koo xam ne ay mbiram da ko wékk ci yàlla wal tajaa ilayhi mu daal di làqatu ci moom wa fawwada amrahu ilay mu jël ay mbiram dénk yàlla kafaahu yàlla dina ko doy billaahi wallahi yàlla gi xoolal histoire daf ñu jàngal yontu yàlla Muusa bi ko firawna dàqee ba mu sës ci géej gi mu gestu seen firawna di ñëw ginnaawam mu xool ci kanam gis géej gi ñi mu àndaloon daal di tiit naan inna la mugraqun ñun danañu lab inna la mudrakun ñun danañ ñu jot firawna danañu jàpp danañu rey Muusa lan la wax kalla déedéet inna maa i rabbi yàllaa ngi ànd ak man yàllaa ngi ànd ak man xoolal kooku dafa jël mbiram wékk yàlla xam na ne ku ànd ak yàlla wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ku ànd ak yàlla yàlla sauvé la yonent yàlla ibrahim biñ koy sànni ci safara si takk ba mu dëgër war ko cee sànni jibril dafa ñëw ne ko loo bëgg est-ce que bëgg loo bëgg ma ci man ma defal la mu ne ko yow kay soxlawuma la sama boroom ak may seetaan duma sama borom mu ngi gis duma seetaan yow moom awma yow benn aajo yàlla mënoon na wàcce asamaan si mu taw mu xiinal ko mu taw safara si fay wala wala yàlla mu ne géej gi demal nga fayal ma safara si wala dex gi wala waaye yàlla dana bàyyi leen tey moomal leen sama kattan yàlla bàyyi safara si tàkk ñu sànni ibrahima ci biir mu ne waqul naa yaa naar kuni bardan wa salaaman ala ibrahim kon wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la beneen beneen yonent yonent yàlla muhammad bi mu àndeek aboubacar ci biir xunt mi aboubacar lan la ko wax gaa yaa ngi nii tey ñu dee lan la ko wax laa tahzan inna allaha maana bul tiit yàllaa ngi ànd ak nun mu ne ko ànd ak yàlla doo tiit waroo tiit hatta sahabatul kiram beneen gaa yi ne tey ngeen dee gaa yi dajaloo nañ inna annaasa qad jamaau lakum faxsahum yàlla mu ne fa zaadatum imanan wa qaalu xasbuna allahu wa ni'ma alwakil jullit yàlla moo ko war a doy mais julliti Sénégal balaa ñuy dem ci yàlla rek day fekk jeexal nañ pare nañ alal ji jeex na xaalis bi jeex na da ngay dégg waa ji mu ne jël naa avocat ba sonn wala dem na neexale naa ba sonn wala def naa ba sonn wala dem naa jënd naa ordonnance ba sonn wala naan naay reen ba sonn léegi nag yàlla laay xaar loolu saa yoo ko defee rek yow bu yow nga xam ne amoo pas-pas ci yàlla yow yàlla féetewu la dara jullit xam nga lan lañ bëgg ci moom soo nee bëreet rek sa xel nekk ci yàlla chaque jour na sa xel di njëkk ci yàlla balaa dara sa xel na nekk ci yàlla moo tax mu ne ku wàkkirlu ci yàlla yàlla doy la yàlla moo lay doy kafaahu llahu wa qarraba ilay yàlla du yem ci rek prothèse la waaye wa qarrabahu ilay yàlla dalay jegeeneel ci moom dalay jegeel mbokk yi ku je ku jege yàlla ku la mënal dara xool leen ñi jege woon yàlla ci kaw suuf ñépp lan la leen nit ñi mënal ba ci réew mii ba ci réew mii am na ñu ñuy tiitaroo keroog ba leen tubaab yi bañee bëgg leen fexeel comme dañoo jege woon yàlla lan la leen tubaab bi mënal tus waaw ñun ñu ne duñu du ñu aju ci yàlla ay bokkaaleeg ay yax ak ay xërëm ak di sangoo deret ak di def ay sacrifice ak di rey ak takk ay gàllaaj ak léeg-léeg nga dend ak nit ci jàkk sàppe bi sa mbagg ak mbaggam laalante mu fees dal dal dal dal dal ay gàllaaj nan ngay takkee lu yàlla tere bëgg a taxaw ci kanamam yaa ngi yor yaa ngi yor fraude ba pare taxaw ci kanamu douanier yi lu ngeen xam ci loolu valise baa ngi fees dell ak fraude sa yaram bi yëpp ay fraude ñoo ci nekk te léegi nag yaa ngi taxaw ci kanamu douanier yi foo jëm foo jëm luñ sa attee kon kay nañ seet li ñuy def yàlla lu mu tere ba pare nga yóbbaale ko indi ko ci moom du baax ixwaan yi wa ilayhi kullu baidin mu ne wa qarraba ilayhi kullu baid gis nga billahi boo ragalee yàlla lépp lu sori woon yàlla dina ko ñoddil mu jege si la boo boo boo ragalee yàlla lépp lu sori yàlla dina ko xëcc mu jege si la wa yassara lahu kullu asir lépp lu jafe yàlla dina la ko yombal lépp lu jafe yàlla dina la ko yombal ba mu yomb ragal rek na nekk dëgg na nekk dëgg ci yow ne da ngaa ragal yàlla histoire moo ñuy nettali ay mbir ay nit fu ñu jaar nekkoon ci ay jafe-jafe waaye ragal yàlla dénk yàlla seen bopp seen jafe-jafe yëpp yàlla dindi ko yàlla moo ko wax waaye yàlla yombalal li yëpp waaye wa man taallaqa bi xayrihi képp ko aju ci ku dul yàlla aw sakana ila anna ra'yahi wa allaqahu ah mu daal di jël mbiram wékk ko ci ku dul sunu boroom jël sa xel jël sa leneen wékk ci ku dul yàlla wa aqlihi ra'yihi wa aqlihi wa dawaihi wa tamaimihi nga jël ay gàllaaj yi ngay fajoo sa xel ak lépp nga def ko ci leneen lu dul yàlla wa nahwi zalika mu ne wakkalahu llahu ilayhi zalika wa xazalahu yàlla dina la bàyyeeg loolu te yàlla dina la gàcceel di nga dem ci sëriñ bi mu lekk sa xaalis ba mu jeex ñu gañe la tëj la ñu gañe la sa projet bi tëj la kon mbokk yi mu ne wa haza lii ñu leen di wax maarufun bin nusuus wa tajaaru lu ñu jàng ci ay texte la waaye expérience wane na ko gis ngeen ci àdduna waajoo xam ne day tooñ takki gàllaaj ren di sangoo deret fu muy mujj ñu jàpp ko ne ko dajax ci kaso bi wala muy rey ay nit di def sacrifice dàngam wow bopp pour moy ci nguur ñu ne ko ndullit daaneel ko ci suuf génne ko pale bi sànni ko ca xaj kon jarul bokkaale jarul di mooy yàlla subhanahu wa taala ci loo xam ne borom bi subhanahu wa taala def le ne soo ma joxee sa bopp moo doy la wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu al imaamu ahmad ñu ngi nettali xadis bu mu nettali mu ne awxa allahu tabaraka wa taala ila daawud fa qaala ya daawud borom bi subhanahu wa taala dafa wax ak daawud ne ko ee yow daawud amma wa izzati wa azamati laa yactasimu bi abdun min cibaadi duna xalqi acrifu zalika min niyatihi فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا الله أكبر yàlla dafa wax yu daawud ne ko daawud man yàlla maa ngi giñ ci sama màggaay maa ngi giñ ci sama teddange man yàlla benn jaam du wakkiirlu ci man làqatu ci sama ginnaaw benn jaam du làqatu sama ginnaaw man yàlla mooy ci man benn jaam la wax de mu bàyyi jaam yépp jàpp ci man yàlla mu bàyyi ñépp man yàlla ma doy ko yonent bi nee na imaam ahmad nee na bu yonent bi di nettalee dafa ne aarifu dhalika min niyatihi ñu ne yàlla dafa mel ne dañoo laaj yàlla wa yàlla noo xamee ne waa ji nee na yow dong yaa ko doy mu ne aarifu dhalika min niyatihi ci yéeneem laa ko xamee yéeneem ci li muy def fi mu toll yéene bi lan la ma ci jox mu ne waajooju duma ko doy ma xam loolu ci yéeneem fa takiiduhu samawaat waa asamaan di ko fexeel ne di ko fexeel asamaan yi juróom-ñaar malaaka yi fi nekk di fexeel waa ji suuf yi juróom-ñaar ñi fi nekk di xes di fexeel waa ji yenent bi nee na imaam ahmad moo nettali nee na illa jaaltu lahu min bayni loolu man yàlla dinaa ko defal ci lii ñu koy fexeel asamaan di ko fexeel suuf di ko fexeel ñëpp ànd di ko fexeel dinaa ko ci defal génn waay waa ji dina ci génn ba mu mat sëkk dara du ko laal li war na doy jullit buur bu toll na yàlla waat amma izzati wa azamati asamaan juróom-ñaar la wax suuf juróom-ñaar ànd di la xeex ma xam sa yéene ne man rek maa la doy man yàlla maa la doy yonent bi nee na yàlla dina ci génne waa ji waaye xool leen siitu xadis bi mu ne wa amma izzati wa jalaali maa ngi giñaat ci sama màggaay ak sama teddange man borom bi subhaanahu wa taala laa yaatasimu abdun min ibaadi bi maxluqin duni maa ngi giñ ci sama màggaay doomu aadama du làqatu ci keneen bàyyi ma man yàlla keneen doy ko man mu sori ma ñu ne yàlla noo ko xamee mu ne aarifu zalika min niyati ci yéeneem laa ko xamee ah mu ne illa qataatu asbaaba samaai min yadihi lu dul danaa dagg yërmande asamaan bu waroon dox digganteem ak asamaan pare na ci allahu akbar illaa qataatu la wax damay dagg asbaaba sama sabab yi jógee woon war a jógee woon asamaan yépp pour waa ji mucc yàlla nee na lépp laay arrêté tëj bunt yi waaw moo tax ku yàlla tëj ku yàlla tëj say buntu yërmande say buntu yi la waroon jàppale koo jëm fan da ngay torox ak koo mën a àndal da ngay torox billaahi wallaahi bu adduna bi yépp àndoon lii moo tax gis nga saxaaba yi ñu mënoon am pas-pas bu dëgër boo xam ne kenn mënul leen dara ci àdduna bi lu nit ñàng-ñàng lu nit tiitlu lu nit ragalu lu nit am doole saxaaba yi bu ñu taxee sa kanam nga tu nga xam ne tey ñi ma recevoir mosuma gis ñu mel nii parce que lu tax tawxiid bii lañ amoon tawxiid ñun nag benn waay bu déggul olof rek moo naan la laa lay làkk nit ñi ne la demal nga baalu ko demal nga baalu kii parce que xam nga waa ji du olof de nga am problème nga tiit dem di jëndi guro waaw gis nga ndax bokkaale kan nga yemu fa mu ne wa asxattu l arda min tahti qadamayhi danaa tàggat suuf si yëngal ko ci suufi tànkam moom waa ji day tremble ba ba muy dee summa laa ubaali bi ay awdiyatiha xalakat mu ne yonent bi nee na yàlla du faale waa jooju ci ban xur lay sóobu daal di alku kon jullit ixwaan yi jullit na ko yàlla doy yàlla bu la doyee sa mbir yëpp daal di baax kon xadis bu njëkk bi mooy man taallaqa shay'an wukkila ilayhi ñaareel bi mooy xadis boo xam ne imaam ahmad mu jëlee ko ci ruwayfa mu nettali ñu ko moom nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma qaala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ra ya yaa ruwayfia la alla alxayaatu satatulu bika fa axbiri nnaas anna man aqada lixyatahu aw taqallada witran aw istanja bi rajiixin da bi rajiixi daabatin aw azamin fa inna muhammadan bariun minhu sahaaba bi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ak man ne ma yow ruwayfa amaana ne yow di nga gudd fan yow yàlla dina la def ngay kuy gudd fan lii day wane yonent bi saa salaam am na lu ko yàlla xamal su xoolee nit ne ko yow kuy gudd fan ngay nekk mu dikk mooy yonent bi yàlla xamal na ko moo tax mu ne waa ji xamalal nit ñi comme yow da ngay gudd fan foo tollu deel xamale ne anna man aqada lihiyatahu képp ku guddal sikkimam létt ko fas ko ay fas-fas di nganda ngandul di bonde di tëb ñaareel bi aw taqallada witran wala mu takk ay gàllaaj aw istanjaabi raji idaaba wala mu dem dem àll ba pare daal di jël nefere xam ngeen nefere li nag yi di génne àll ba wala fas yi mu daal di koy fompoo aw azamin wala yax dem àll ba ba pare ci àll bi amoo loo fompo nga jël yax fompoo ko ku def yii yonent bi nee na yow ruwaaya ruwaay ruwaay feex xamala nit ñi fa inna muhammadan bariun minhu ku def li muhammad dañ na ci yow pare na ci yow ñeent yi ku ci def dara yonent yàlla muhammad dañ na ci yow pare nga ku muhammad dañ lu dese lu muy dese yonent yàlla muhammad dañ ci moom lan la waa ji def bu njëkk bi mooy defar sikkimam ba mu gudd loolu jaahili yi ñoo ko doon def ceddo yi defar seeni sikkim léttu ko ba mu gudd wala takk ko ay fas-fas di bodde ci kaw nit ñi ci ci jamonoy xare nekk ci kanam ak sa jaasi yonent bi nee na ku def lii dëñ naa ci yow ñaareel mooy ku takk gàllaaj yonent bi nee na dëñ naa ci yow ñetteel ku fompoo ku fompoo nefere xam ngeen yonent bi saa sallam da ko tere ndax nee na seen mbokk jinne yi ñoo koy dundee riwaaye yi bëri na mu ngi ci kitaabu tawxiid dañu tere ab julit mu jël nefere yi di ko di ko di ko fompoo di ko laaboo ndax jinne ya koy dundee ñoom bu ñu ko jëlee tudd turu yàlla rek mu nekk ci ñoom lekk yonent bi daal di koy tere wala yax bu ñu fekkee yax ñoom tamit bu ñu ko jëlee tudd turu yàlla mu am yàpp ñu lekk boo ci fompoo dañ lay dañ lay dañ lay ñaanal alkande ñeenti yonent bi daf ko tere sallallahu alayhi wa sallam ixwaan yi bu ñëwee ci anasiru dars éléments yi mooy samaratul itimaad ala allah lan mooy fruit fruit aju ci yàlla jël sa lépp jox yàlla yan fruit yi nga ciy jële lépp garab goo jëmbat di ko roose bu garab gi màggee amal la fruit amal la njëriñ benn doom yi ñaar ker gi ñett xob yi ñeent xas yi juróom reen yi foog mu am njëriñ mooy samara foog mu am fruit bu boo ci def kon ku jël sa lépp wékk ci yàlla loo ciy jële man taallaqa billahi wa anzala hawaijahu bihi waltaja ilayhi wa fawada amrahu ilayhi kafaahu subhanahu ixwaan yi ku jël sa lépp jox yàlla lépp say aajo sa mbir yëpp nga dénk ko sunu borom subhanahu wa taala lépp nga làqatu ci ginnaaw yàlla làqatu ci ginnaaw kenn nga jël sa mbir yëpp li ci gën a tuuti ba ci li gën a mag nga jox ko sunu borom nee na yàlla subhanahu wa taala dina la doy kafaahu yàlla dina la doy lu ci des mu ne wa yassara lahu yàlla dina ko yombal kullu asir lépp lu jafe yàlla dina la ko yombalal comme ni ko sunu borom subhanahu wa taala waxee ci aaya bi wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la wa hada tawakkul al waajib laa yunaafi al axdu bil asbaab al mashrua nee na wakkirlu ci yàlla bi nga xam ne dafa war ñu ne wakkirlu ci yàlla du tere nga def ay ay sabab man a kenn du xëy tëdd nelaw jóge liggéey li nga naan damaa wakkirlu ci yàlla non déedéet loolu du tawakkulu loolu tawakkul la ah kenn benn waaye ñëw na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di bàyyi gëléemam wàcc rek dugg ci jàkka ji di am aajoom di ko wax ak yonent bi yonent bi ne ko ana sa gëléem mu ne bàyyi naa ko fële mu wàkkirlu naa ci yàlla bàyyi ko fële mu ne ko déedéet aqilha summa tawakkal demal nga jël ko nga yeew ko nga wakkirlu maa da ngay def sabab yi da ngay def sabab yi sabab yi mooy lan mooy yeew ko te li wakkirlu sabab yi mooy lan fajul te wakkirlu sabab yi mooy lan uti liggéey te wakkirlu xëyal suba sol say dàll uti liggéey te ñaan yàlla waaye xëy suba tëdd di nelaw wala feeja feebar jógal faj yi jógal dem hôpital nga naan non non yàlla dina ma faj maa ngi wakkirlu ci yàlla loolu du tawakkul kon da ngay def sabab yi sabab yi nga xam ne nag dañ leen a yoonal maanaam liggéey lu dagan fajoo lu dagan uti lu dagan loolu lañ la sant nga def ko ñàkka liggéey bu mu tax nga liggéey lu xaraam feebar ba sonn bu mu tax nga fajoo lu xaraam ndax wakkiirlu bu ñu koy wax dafa am wakkiirlu bu ñu yoonal sabab nga dem uti sabab yi noo ko noo ko réglé ci lu ñu daganal waaye ñaareel bi mooy wa man taallaqa bi gayrillaahi képp ku aju ci lu kudul yàlla ak nga aju nga aj sa xol sa xel sa lépp nga aj ko ci lu dul yàlla yarju minhu naf nga yaakaar ci moom njëriñ awi daf i ad dur wala ngay ragal ci moom wala nga yaakaar ci moom dina la dàqal lor wa kalafu llahu ilayhi yàlla bàyyi laak loolu yàlla bàyyi laak loolu boo yaakaaree nit yàlla bàyyi laak nit ki xatta garab gi ngay naan boo ci yaakaaree yàlla bàyyi laak garab gi koo yaakaar yàlla bàyyi laak kooku hadis la ana agna ashurakaai ani shirki yàlla nee na man damaa doylu képp ku ma bokkaale ma bàyyi laak ki nga ma bokkaaleel allahu akbar lu doy waar la de mbokk yi képp ku aj ci kurul yàlla yaakaar ci moom njëriñ wala lor yàlla bàyyi la ak moom fa xasira wa halaka waa jooj bu la bu amee loolu amee di nga perte di nga alku ñaata nit yu ngeen xam gis naa benn waaye boo xam ne ci jamono feebar lañ ko bokkaale loo mu bokkaale ba pare wérul mu dee ci jamono feebar lañ ko sangooloo deret reyloo ko gàtt sangooloo ko deret bi wérul ba pare mu dee ba pare ñu naan mbokk yee ko def moom def ko gis nga te lañ ci jubloon mooy mu wér mu wérul mu dee tooñ nañ yàlla la ñu bëggoon amuñu ko ñaata ñaata ci nit ñoo koy def ñaata ñaata kenn xamul nu mu toll ci réew mi tey ñaata nit ñooy bokkaale ba pare du ñu am liggéey bokkaale ba pare te dañ la ne woon lii boo ko defee di nga liggéey nga def ko la liggéeyoo su ko defee nag bàkkaar bi nekk fa nga nar a taxaw ci kanamu borom bi subhanahu wa taala ak moom ixwaan yi man taallaqa cheyan wukkila ilayhi wa haza xadisun min jawaamii kalaami allazi utiyahu muhammad salallahu alayhi wa sallam nee na ku takk dara yàlla bàyyi la ak moom lii xadis la boo xam ne dafa bokk ci xadis yi nga xam ne ku ko jàng di nga xam ne yonent bi saa sallam yàlla daf koo may daf koo may mu mën a tënki wax wax gis ngeen wax ji nu mu tuutee man allaqa cheyan wukkila ilayhi wax ji gis ngeen ni mu tuutee waaye mooy àdduna mooy àdduna bi lépp mooy lan mooy ku yàlla doyul dara dootu la doy ku yàlla doyul xool leen ñi yàlla doy lu ne ñu dugg ci waaye ku yàlla doy du sonn boo ko boo waxee danaan la ah yàlla baax na du dox lu bari du wax lu bari du ñàkk a nelaw su ko àdduna bi yëpp të tëkku woon bu ju léegee dem jàpp tëddi ku ko fëgg guddi mu ubbi la parce que yàlla moo ko doy waaye ku yàlla doyul ku la fëgg guddi da nga naan léemu naa ba pare du ma jóg booy xëy fajar da nga naan du ma dëjëg góor wala du ma dëjëg jigéen booy uti dara ñu ne la nangam loolu ngay def parce que yàlla doyu la waaw am na ñoo gis nga kii mu ne am na bis yoo xam ne am na gaa yoo xam ne bis yoo xam ne duñu ko sang ay genre àllarba duñu sangu àllarba duñu tukki àllarba duñu duñu duñu yooyu yëpp musiba la ab julit na ko moytandiku mbokk yi ñaareel ci anasiru dars mooy wujub war na alxazru min amalil jahiliya dañoo war a moytandiku ñun ñëpp jëfi ceddo ceddo dañ ko war a moytandiku ay jëfi ceddo axbara nabi sallallahu alayhi wa sallam ruway ruway fa an annahu sayatulu umruhu waa ji tudd ruway fa yonente bi ne ko ne ko di nga gudd fan wa hada ilmun min alami nabi ne loolu xam-xam la bu yàlla subhanahu wa taala jagleeloon yonente bi saa sallam mu xam ay mbir faqad taala bihi lxayaatu moom ruway fa dundoon na at yu gudd yu yàgg waaye yonente bi saa sallam xamal ko wa amarahu an yuxbira yonente bi xamal ko ne na nga xamal annaasa nit ñi anna muhammadan bariun mimman faala ihda hadihi lmanhiyat yonente bi saa sallam ku deñ la ci ku def ñeenti mbir yi yii di ñëw ku ko def rek yonent yàlla muhammad dañ na ci yow dinañ jàng ci hadis bi encore ku xam da ngaa war a xamle ndax yonent bi nee na rooy fa axbiri naasa xamalal nit ñi kon ku xam da ngaa war a xamle yoo xamle wu rek am nga bàkkaar yan ñeent la aqdu liha fas sikkim kama yafalu ahlul jahiliya comme ni ko ceddo yi doon defee moo tax nga fekk dara ceddo di ko def nga def ko ba pare naan ma ñun misaal di nga gis xale bu juddu xale bu ndaw liir ñu ne bala ñu koy wat mu ne bàyyi wat ma kenn du ko wat yonent bi lu mu santaane ci loolu xale bu juddoo nañ ko wat ñun aada Sénégal am na ñoo xam ne kenn du leen wat wala am na ñoo xam ne dañ naan laboo bange dañuy wat benn côté bàyyi benn côté laboo bange mbokk paa bàyyi wala ñu def ñetti jubbu fii benn fii benn fii benn ñu ne loolu mooy sunu aada aada yi xool nu mu bëree bu jigéen di sëyi dañ koy sang dañuy jël dañuy dajale jigéen ñu musul sëy ñu musul fay ñu musul fay jigéen ñu musul fay ñu jël ndox def ko ci siwo ku nekk ñëw daal di tibb daal di sotti ko jigéen ki daal ne yoowaano wayanno waa ko du mbeetoon xoola aada yu bon yooyu ñu ñu teg ko ci gënn lañ koy teg boo demee ci dëkku séeréer yi balaa jigéen ji génn dëkk ba dañ koy yóbbu ci guy ba mu wër guy gi day tàggu maanaam mooy day tàggu xërëmu dëkk bi wala balaa ñu koy takk foog mu dem tàggu ji xërëm bi da ngay dem ca guy ga nga nga nga kii fa sotti fa soow waaw toog fa tuuti après nga doog a ñëwaat mooy lan damay balaa nit di def dara rek foog mu dem seen dëkk. wala tey am na ñoo xam ne France lañ nekk mais yenn saa yi dañuy ñëw Sénégal sangu doog a ñibbi léeg-léeg ñu ne sama papa ñëw na dafa ñëw sangu si sama maam ñëw na dafa ñëw sangu si sama frère bi ñëw na dafa ñëw sangu si parce que bu fa yàggee tuuti rek affaire yëngal ko foog mu sangu doog a dellu wala jaamu xërëm yooyu. yëf yëpp ay yëfu ceddo la dafa bëri dégg nga ah waaw xale yooyu ñoo am fu la nee na seen dëkk am na fa place yoo xamante ne dañuy defar ay nàkka balaa ngay sëy da ngay defar ay nàkk dem teg ko ci dugg gi nee na xale yi bu ñu yégee loolu rek dañuy dem nëbbatu boo tegee nàkk yi ñu jël lekk wax nañ dëgg toll ne nàkk nga koy tegal ay guy guy li li li benn waaye doon wax mais léegi leen saa nga dégg ñu ne am tuur la am tuur fii de am tuur la mu ne loo dégg ñu naan tuur dañ ko faa tuur suñ ko fa tuurul du fa tuuru am tuur la yaa ko fa tuur yaa jël soow mi tuur ko wala yaa jël yàpp mi tuur ko fa soo ko fa tuurul kenn du ko fa tuur kon kay yaa ko fa tuur imagine doomu aadama jël soow jël yàpp amoo loo koy def lu naan da nga koy sarax ay jinni te doomu aadama yi nekk fi saraxel saraxal julli bi nga ñaan yàlla sa aajo yàlla faj ko waaye ndeysaan mooy jëfi ceddo ba léegi nii Sénégal ay ceddo dafay des li ngeen gis ne ñu xëy suba di tey lan laa dégg tey maa dégg ci rajo bi sama nopp ñu naan ku nekk na nga saraxe juróom-ñaari galaas jigéen moo ko doon wax de ku jigéen man ak ñii ànd nañ Casamance ñii ñu jékki-jékki fi ñu toog ci digg kër yi rek ñu seen benn ngandum galaas bu wow koŋ ponkale ngand ñu teg ko ci digg buntu kër gi mani kii jógal nga jël glace gi nga def ko ci ndox ñu naan rek ñu ne suuf lan ngeen soxla lan ngeen soxla glace xaaral ñu jox leen xaaral xaaral ma ne bii nag bu ngànd bii nag ñu ne huu oustaz bàyyi fi bii xamoo lu tax ñu teg ko fi ma leen bàyyi leen ñu naan ko billahi bu ngeen bàyyee ñu yàlla di ko naan ko ñun dañoo mar dafa sedd dafa tàng glace gu ngand gii ñu ne bàyyi rek dinañ la jox beneen noonu la fa glace gi yendoo noonu la fa glace gi yendoo di seey di seey di seey ba jeex tak tey laa dégg ñu naan saraxee leen juróom-ñaari mbuusi glace pour lan da ngeen gas ba mu xóot ngeen et puis waxuñu sax saraxee leen nit ñi naan mais dañu ne gas leen ba mu xóot ngeen suul ndax ne nañ dëkk bi dafa tàng pour dëkk bi sedd yooyu ay jëfu ceddo la yooyu lañ war a mooy te ndiku ay mbir yu bare bari yoo xam da nga koy dégg ci rajo wala di ko dégg ci dëkk bi ñu koy digle nga nga xëy rek def ko lan moo fi indi sotti ndox buntu kër lu ko fi indi jëfu ceddo la ba léegi nii Sénégal dañ koy def néew na kuy xëy suba du sotti ci otoom ndox wala buntu këram wala taabalu marseem laa ilaa lu da ngay romb nit ñi ku nekk di sotti kook sóori sax kook sóori dañuy jënd mbuusu ndox naan ni ci tali bi rrrr for de dama gis kook sóori di jënd ay mbuusu ndox di bënn di sotti xam ngeen kook sóori mooy ñii laaj juróom bu oto gaaree da ngay gis sax ñu naan nii fay xëy fajar taxaw ci tali bi nga xam ne fa la ñuy di naan ni naan ni tali bi di roose yooyu fi ceddo la gis te yonent bi daf ko tere yonent bi nee na ku ko def deñ naa ci yow maag yow bokk ñu yoon ñaareel mooy jaalul watri aw qallaada fil unuq mooy takk gàllaaj comme yi gars yi li ñuy def takk béjjén yi takk xaaw yi takk takk lépp loo takk dugg nga ci mbirum ceddo ceddo rek mooy takk ceddo kese mooy takk nga yaakaar ne loolu def na la musal ci bët ak ay lor nee na wa haza shirkun ndax dafa wuuteeg pas-pas bu dëgër da nga yaakaar ne da lay indil njëriñ di la dàqal lor nee na loolu bokkaale dëgg dëgg la yàlla dong mooy jëriñe yàlla mooy lore mooy ñaareel ñetteel mooy al istinjaau di raws fomp wala laaboo nefere dañ ko tere wa haza muharramun li anna al azmu taamul jinn ndax nee nag yax yi wala nefere yi moom mooy dund jinne yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu xamal kon ku demati ci àll nga war a dem ginnaaw kër fexeel nga ut morso bu laab morso boo xam ne amul dara ci mbiru diine lu ñu bind diine wala lu ñu bind lu ñu màgg wala këyit këyit bi tamit xool ko bu mu am lu màgg wala mbiru diine nga daal di koy fompoo wala nga wut xeer xeer nga fompoo ko loolu la ñuy wax waaye nefere dañ ko tere dañoo tere ku fompoo yax ñeenteel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere ndax mooy ñeenteel bi mooy yax bi ñetteel bi mooy nefere bi yooyu dafa nekk ay mbir yoo xamante ne dañ koo tere wa hadihi al manhiyat as-sabiqa min al kabairi zunub nee na ñii ñu wax yii ñeent yi ñu wax dafa bokk ci bàkkaar yu mag yi bàkkaar yi nga xam ne minal muubiqaat ci alkala la bokk kon ab julit suñu ne lii bàkkaar la rek war nga kaa mooy tandiku rawatina ñu ne dafa bokk ci bàkkaar yu mag yi minal kabairi zunub li ma warada fiha min al waid ndax lan ndax rot na ci lan moo ci rot mooy tëkku tëkku yonent bi moo ne ku ko def yàlla dina dajeeg yow ixwaani tëkku gi gën a garaaw nag gi ci aju mooy fa inna muhammadan bariun minhu muhammad dañ na ci yow buñ ne yow muhammad dañ na ci yow yow lu la wax jullit jullit buñ ne muhammad dañ na ci yow yow loo deseeti ku muhammad dañ ci moom lu ngeen xam ci moom safara la jëm addunaam yàqu na alaxiram yàqu na idan fa ala al muslim an yakuna xazaran min al wuqui fiha ab jullit na mooy tindiku ci tàbbi ci yii lii moo doon dars bi yàlla yàlla def si ñun digg ak topp li ciy njuumte ñu ngi koy jégglu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله